asalaamualeykum waa senegaal su ngeen gisee ma yëkkati audio bi damay wax ci mbir moo xam ni daf ma ñor lool mooy leeral taxawaayu kilifa diine yi bi xew-xew yi amee ci senegaal kilifa diine ak sëñ Mountakha seen taxawaayu mat na sëkk gannaaw ba nu yablee ñu waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi ak ñi nga xam ni ñoom lañu joteel. sëñ Muntaxa moom si boppam yónnee na délégation te délégation boobu ma am xéewalu bokk si ñu waxtaan ak opposition bi opposition bi teg lépp si suuf gannaaw loolu taxawaay bi mu si war am yépp am na ko ba ñi nga xam ni dañ leen tey woon te nu ma téeméer ak fukk ak lu topp bàyyi nañ leen ba tey sunoo wax xëy na juróom benn wala juróom ñaar wala lu ko yées moo des wala lu ko yées moo des ci biir kaso yi yamul foofu mu jël alal ju am solo di juróom fukki million séddale leen ko séddale bu rafet mu yónnee kilifa isbur tarxiya mu def délégation képp ku gaañu wala ñàkk sa bakkan ñu dem ba sa kër jox la ko masawu la li mu war def yëpp def na ko sëñ taxaan nag moom lu ko ñor ñëpp ni moom bëgg-bëggam yépp mooy am ngërëmal boroomam am ngërëmal rasulullahi sallallahu am gërëmal sëñ Touba si loolu la nekk moo tax taxawaay bi si war yëpp def na ko moom ak kilifa diine yëpp dama wax ni ñi nga xam dañu nekk si langue politique bi war nan ko sant santaale kilifa diine yëpp seen taxawaay jërë ngeen jëf.